tom boobu nag ton bu am am solo la ndax ku ne xam na ne nit war naa xam ndonoom xam mbatiitam dana tax mu xam nan la war a nekk ci àdduna ak fan la war a teg tànkam kon loolu lu am am solo la ñu ngi sàkku mbokk yépp teewal ko ci xel ak ci xol bàyyi ko xel bu baax a baax niñ ko baaxee dafa itam ki war a waxtaan balaa muy tàmbali ñu tënk as ci ay jaar-jaaram ngir laltaaya ko waxtaan wi ngir ñu koy déglu mën cee sukkandiku xam ne kii ñuy waxtaanloo kat yelloo na waxtaane tam bii euh, ngir fi nga xam ne jaar na fa ci tënk docteur Massamba Gueye mii mu ngi tàmbalee am njàngam ci alquran ak ci français yépp ci dëkk bii di kokki kokki di dëkk boo xam ne dëkkub xam-xam la dëkkub daara la sëñ Massamba Gueye mii foofee la tàmbalee njàngu alxuraanam ak njàngum français am ba jóge fa dem Caameen Kajoor foofee ci wetu kokki wa juróom bu góor nekkoon fa ginnaaw ba nag mu jóge fa dem Louga foofee ca Louga nag fa la yeggalee am njàngam ba am baccalauréat ñu amee baccalauréat foofee ci Louga ci la dem ci daara ju mag jooju yi nga xam ne moo nekk dakaar di université Cheikh Anta Diop foofee la dugg di fa wéyal am njàngam ba mbooleem diplôme yi nga xam ne danañ ko fa amee yépp jëlee na ko fa ndax foofee fa la jànge ba am licence fa la amee maîtrise fa la euh, defe amee DEA ak teesam lépp foofee la ko defee ci Cheikh euh, université Anta Diop ginnaaw bi itam def na concours école normale supérieure ba tax ñu jël ko mu bokk ci ñuy jàngale ci école yi gouvernement bi ci niveau bu suufe bi ak mag bi yëpp ndax am na certificat KM am certificat KS muy ñaar yi nga xam ne euh, benn bi mooy tax nga mën a jàngale ci yu suufe yi ak yi tax nga mën a jàngale ci yu kawe yëpp moom mii def na concours ba am ñaar yooyu yëpp ginnaaw ba ci liñ ko yóbbu nag Koungheul ci CM Ibrahima Ba mu di fa jàngale lu toll ci juróom-benni at jàngale na ko foofee ca Koungheul ci seeyam Ibrahima Ba gannaaw ba ñu yóbbu ko ci parcelle lycée parcelle mu di fa jàngale foofu itam jàngale ne ba fukki at ak ñett jàngale ne ko foofee ca lycée parcelle ba gannaaw ba ci lañ ko fa jëlee yóbbu ko ministère éducation nationale euh, mu jiite fa division communication diirub ñetti at moom mii di docteur Massamba Gueye Euh, moo jiite woon division communication na euh, ci ministère éducation nationale juróom ñetti at ginnaaw ba ci lañ ko fa jëlee nag yóbbu ko mu nekk directeur sénéral ci Sorano mu théâtre dañu Sorano bi nga xam ne moom tuddee Alaaji Doon Jaay Kumburoos moom itam nekkoon na fa di directeur sénéral ba ginnaaw ba ci lañ ko fa jëlee yóbbu ko mu nekk conseil technique à la présidence de la moom itam loolee nekkoon na ci bokk ci nit njiitum réew mi tànnoon ngir ñu nekk ci wetam di ko xelal kon loolu lenn la ci ay rekk ay jaar-jaaram waaye moom itam bindkat la moom Alaaji sàmba gay mii bindkat la euh, directeur artistique la gëstukat la itam lu bare bare bare ci cosaanu réew mi ak seeni aada ak ci mag ñi fi jiitu woon ci diine ji ak ci ceddo yi lépp lu ci bari bari yàlla may na ko ci wàll gu yaatu yaatu ci wàllu gu léeb yi itam yàlla may na ko ci mu di ci jàngale di ci indi yu ama am solo du tollu ci ñaar fukki at ak juróom benn ci rajo Sénégal bi am na ci émission bi muy def boo xam ne si ne ay léeb mooy hérésie waaye itam poésie waykat la ku yëngu ci wàllum jubbanti ay mbind la maanaam lépp lu jëm ci corriger mbind wala ci wax loolu itam bokk na ci ay Eh, yëngatoom kër gi ñëwee kër layti di kër goo xam ne yëngatu ci wàllu patrimoine ak mbatit ak formé gone yi ba mën ñu mën ay jukko yu baax ba mën a nekk ay cadre ëllëg kër googee moom mii docteur Massamba Gueye moo ko sos ba tey docteur Massamba Gueye mii membre conseil la ci administration eh, muy kuréel gi saytu doxiinu mii si civilisation noire bi moom mii ci membre yi koy saytu la bokk ba tey kër gi gi naan ENAM muy école nationale des arts et de la culture bokk na ci euh, membre yi koy ngànk di ko saytu ci atum 2000 itam moo jëloon raaya spécial international de la promotion de l'oral moom mii yàlla def na biñ saytoo gëstu gis nañ ne moom ci àdduna bépp mooy ki nga xam ne moo ci jël raw gàddu gi ba tax ñu jox ko raay bu mag boobu ba tey moom mi micro d'or ngir ki dàq lépp ci senegal moom mi di docteur Massamba Gueye moom lañ ko joxoon ci at yu njëkk yooyu ati année 2002 euh, comité scientifique bi doon toppatoo dossier ceebu jën ngir ñu boole ko ci listu du patrimoine mondial immatériel de UNESCO moo nekkoon seen coordinateur ba tey ancien expert la artistique la ci kuréel gu mag bi lëkkalee réew yi làkk français ñu di ko woowee UEF mu tam ci euh, conseil ancien yi expert yi ci la bokk kon daal loolu rek ay tënk la yu gàtt-gàtt ci ay jaar-jaaram ngir ñu mën a xam ne moom mii tam bi ñu ko jox ku ko yelloo la kuy faral tam def ay émission la ci télévision yi ak ci rajo yi jëm ci jàngale ak xamle waaye itam bindkat la bind na ci lu toll fukki téere ak juróom-ñaar yoo xam ne bind na ko moom docteur mii téere yenn yi ci gëstu la yenn yi day jàngale yenn téere yi ci wàllug léeb la kon daal loolu ci tënk mooy li nga xam ne moom la ñuy mën a xamal mbooloo mi ci aslaf ci jaar-jaar yi sëñ Massamba Gueye bi nga xam ne ma bëgg a ñun waxtaan wi xam naa ñi nga xam ne dañu bëgg a topp waxtaan yi itam ñu xamal leen ne am na ay rajo ak i ak sit site internet yoo xam ne ku bëgg a topp waxtaan wi mën nga koo toppee ci ñoom jant bi FM waxtaan wi da koy teg sero heure bu jotee UCAB FM da koy teg neuf heures RTS Touba da koy teg neuf heures Benno FM da koy teg dix-sept heures Lamp FM da koy teg RFM da koy teg 14 heures SIC FM da koy teg 15 heures rajo da koy teg 0 eur Bawol media itam da koy teg 14 heures di ko def direct 18 ci rajo bi ak Facebook bi Sud FM itam da koy teg Walf FM da koy teg eh, leer gi FM itam Louga da koy teg 9 heures ci suba FM itam da koy teg 20 heures Touba TV guddi gi ak suba gi yëpp da koy tegaat làmp Fall TV da koy teg 7 heures du matin yi nga xam ne nag ñoo koy def direct nga xam ne fi mu toll nii nii ñi ngi ànd ñun ci jotaay bi mooy Bawol Média ak Assamadiya ak bisiri ak tubaa Vision ak Alxadimiya ak Alwafa Daaru Moxti ci YouTube bi ak Facebook bi yëpp dañ koy teg directe ak xibaaru réew mi itam TV dañ koy teg kon yooyu ay bërëb jotaay yoo xam ne képp ku bëgg topp waxtaan wi boo fa demee danga ko fa mën a am kon ñu ngi ñaanal ma Massamba Gueye suñu borom defal ko tawfeex defal na ko ñu ngi nuyu ñëpp di baal ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant waaye ngeen may ma bala may door. ñu sant sëriñ tubaa ndax moo nu defi jullit may ñu toog fi daje fi tey li may wax rek ne Serigne Touba moom njuumte weesuwut naan ku ko lebal mu fay la waaw daa liggéey ba noppi ñuy jariñu fu liggéey ba noppi ngay jariñu moo amoo loo ko lebal dangaa nekk ci di ko fay te lott ci dab ko kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax jërëjëfatee Sëriñ Touba di gërëm kilifa diine yi ne ci dëkk bi ak ci réew mi di jox ngërëm li ki nga xam ne moo tax ma ñëw fi tey ndax sunu daje ci liggéeyal Sëriñ Touba ak yitte jum ci def moo tax ñu xàmme ba ginnaaw taalibe gi kóllëre dox diggante muy sëñ Cheikhouna Mbacke maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax ndax lépp mooma di gërëm kuréel gi nga xam ne moom la àndal ci liggéey bi ci seen farlu waaye ci yéeme gu ñu yéeme ci ni ñuy doxalee seeni mbir ndax yàlla dogal na ci kàttanam ak mbaaxam ñuy liggéey liggéey boo xam ne dinañ dem ci barab yu xaw a takku ci kàttanu yàlla di waxtaan di jokkook ay kuréel lu mat at ñaari at di wàcc ay conference waaye ni nu koy doxalee ak ni kenn ku ne ñu bàyyi la sa cër ak ni lay peegee ba di lijjanti ba xam jóg nga sa kër wala jugoo bariwut lu ma koy gis ci ay kuréel muy fii muy bitim réew kon nag loola ndam la ci ñun waa senegal muy doomi réew mi nekk fii am niveau Euh, bi nga xam ne moom lañ toll ci seen liggéey di gërëm mag ñi ci jataay bi di leen gërëm bu baax leen ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér yàlla sàmm leen di gërëm ndaw ñi ci jataay bi di ñaan yàlla barkeel leen ñaan yàlla may leen nopp yuy dégg ndax bopp bu nar a barkeel nopp yuy dégg ci sax di gërëm sëñ naa Diop ci liggéey bi ngeen may ma ñaanal sama waajur wu jigéen ak wu góor ndax ña tëdd Touba waaye sama waajur wu góor moom fii la génnee àdduna ndax moo yoroon dispensaire daarul mannaan bi fii ci biir daarul mannaan la génnee àdduna ci woon ko Demba Gueye 1993 kon daaru musti daanaka xam na mënu ma ne gan laa fi nag ndax du ma fi gan wax dëgg ndax yi xel ndax ma jóob bi tey mii maire bi bàyyam ak sama bàyyi bokk ndey defe naa ne suñ Bas Mbàkke moom suñ Koso maa ko jàngal te turandoom bi mu yor communauté rural bi yàgg naa fi ñëw guddi ñu nekk Sarsara di fa daje kon gone yi doon yëngu yit ci ay fois ak yooyu ci aada ak cosaan fukki at jiite naa leen yàgg naa ñëw fi Daaru Musti di fi ànd ak ñooñu ñëpp kon kóllëre gi yàgg na sama diggante ak Daaru Musti waaye nag Daaru Musti moom kóllëre gi dafay kóllëre rek murit yëpp rek waaw muy bor boo xam ne dañ koo ameel borom daaru ci téye bu mu téye yoon wi ba sëñ bi dem ba ñëw te dara yënguut ku la man a loo mënul sa bopp nag foo toll da koy gërëm te xam ne am nga bor boo ko mënta fay kon yàlla ñu yàlla fayal borom daaru yàlla yàlla mag magi diine ñi ci àdduna bépp rawatina ñi ci réew mi euh, ñu dénk ma nag waxtaan woo xam ne waxtaan wu jafe la waaye li ñu sant yàlla mooy waxtaan wi sëñ Tuubaa ko indi ndax ni mu ko indee mooy bu nu newloon di yëngu keroog bi nataal yi mujj a génn génne ñu ne di yëngu ngir jël ayu bis dajale ko kenn ku ne ci ñun xool ndono loolu nun koy def xool kenn ku ne lang ca yor nu nuy def ak yow xëy na kon du nu am yittey xam ne loola am na solo mooy la nu waxoon rek ca jataay ba ne moom mat na mat goo xam ne yàlla fayee na ko noo xam ne lu jot lu ne dana ko génnee fa mu ko war a génnee gannaaw ba mu waajalee ci ñoñam ñu taxaw nag te mat ci yor ko kon ndegam foto foto bu tubaab foto yóbbu ko ay mbokkam sàgganee ko moo mën a dajale murite àdduna bépp jullite àdduna bépp ñu jóg def ko yitte ju rëy rëy rëy leneen li moom luy dayoom jumaay Tuubaa moom luy dayoom moom xasida yi mu bind ak loxo boppam luy dayoom loolu la moom lañuy daanale waxtaan wi waaye li ñu koy ubbee mooy loolu ñuy wax turaas ñu tuddee ko patrimoine mooy lan ndono lan nga donn ak lan nga moom boo ko bëggee xam dangay ngay càmbar yow ci sa bopp ci li la wër lan nga mayut kenn mu jël ko mbaa wax ca lu ñaaw maanaam boo bëggee xam ba xam daaru muxti sa sa sa ndono la danga koy natt ci boo toogoon tey ci rajo bi wala tele bi dégg ñu wax safaan ba tudd turu dëkk bi ban jeexital lay def ci yow ngay soog a xam ne kon loolu bokk na ci yow maanaam sa way-jur wi lim fi ba kër gi mu fi ba mbub mi mu fi ba bu ko nit ñëwee bëgg a jël def ca lu safaanoo te nga xam ne sa way jur doon na ko sol ndax danga ko nangu mooy yére doo nga la de waaye yére yi dootu yére day yére yu sa way jur soloon kon li nga xam ne moom ngay jàpp ne moom sa mbatit la muy sa culture mu am ci biir loo xam ne sa turaas la muy sa patrimoine boo munta teg loxo muy ndono li dafa am leneen loo xam ne man nga koo laal muy lu mel ne jumaa jii ñu ne am na ci ñun ku fekkee woon ban koy sos waaye fu nataal bi génnee xel yépp masa jaar fi màggali mbaa nga dëkk fi xel yi dañuy ne jumaa ji jumaay daaru la kon noonu lañ koy nattee muy li nga xam ne mën nga ca teg sa bët ak li nga xam ne mënoo ca teg sa bët waaye ci biir li nga mën a teg sa bët dafa am ay pàcc dinaa ci ñëwaat ci biir li nga munta teg sa bët dafa am ay pàcc te lenn ci li nga mën a teg sa bët munta am solo mukk ca li nga dul teg sa bët ëpp ko solo maanaam boo jëlee kuréelu xasida kuréel ga boo toogee sa biir néeg di ko dégg ak boo toogee di leen gis la ngay gis du benn la ngay dégg du benn yëg-yëg bi mën naa bañ a doon benn buñ la wanee kuréel goo xam ne am na nu nu solo am nu nuy defee sa xel dana dem ci méngalee nag geneen kuréel ga nga tàmmoon ñuy defee noona di solo noona kon jeexital bi muy am ci nit nit ki sax mënu koo xam loolu moo tax ci njëlbeen gi dama bëggoon ñu juboo ci li ñuy wax lan la maanaam li ñuy wax mooy lan loolu ñu tuddee suñu ndono lan la ndax dañ ci jël lu nu neex wala ndax dañ ci jël lu nu naqari ndono li ku ko moom ak ku ko moomut tudd ngeen fi léegi ne senegal am na ci xeetu xéewal yi xeet yoo xam ne ku tukki sunu mbokk daara yi demoon jàng ci réew ñu xees ñi xam na ne danañ toog ba ci yàgg ñu waxtaan namanteku ñam woo xam ne xam na ne duñ ko fa am ndax amut ko ko fa mën a togg te ñam bu ñàkk solo la loon fii bi ñoom bi ñu ko fi bàyyi di dem waaye gindi bi gindiku gi ñuy gindiku ci xam ne loola lenn la ci ñoom te ñàkk nan koo gis ba mu mel ne am na lu lu lu lu yées ci ñoom loola moo leen di wan dayoob moom gin ko moom xam nga bala ngay namm kenn nga masoon koo gis wala fi nee nañ ku rombi sëg jooy yaa xam ñi fa tëdd gone du jooy mukk fowukaay bu musul gis gone kokki du xëy mukk di jooy naan bàyyi dama bëgg nga jëndal ma avion xamu ko waaye gone gi nga xam ne bàyyam day liggéey aéroport di ànd ak moom di fa dem moom dana ko xam gone yi nag mooy askan yi askan wu ne gone nga ci lii sa maam ak say jur bàyyi foofu léegi lan mooy def lan mooy def te mas nañ ma ko laaj 2002 Suisse Genève ma ànd ak benn tubaab génn na àdduna tey mu ne ma lan mooy def saa yu nu taseeg africain ñii nga làkk leen tubaab waaye ñenn ñi moom boo leen gisee rek wolof nga leen di wax te dañ lay tontu wolof noo def ba xàmmee sénégalais yi ci biir africain yi te man mënuma leen a xàmmee te ñoom dañoo mën a seetlu mun a ma seetlu naa ko nag ndax boobu def naa fa weer ak ak ak nangam am téere bu ma doon bind foofu ma ne ko loola lu ma lay mën a lu ma lay mën a leeralal loola lu ma yëg la bu ma gisee sénégalais danaa xam ne kii sénégalais ci ginnaaw gi nag laa gëstu ba xam ne la ma jàppe woon ne munuma koo leeral ndeket mën naa koo leeral waaye du lu ñu wax ci pénc ndox boo ko waxee dangay ngay xàjjale ay xeet te sama yaay def na moom lépp lu ñu la nettali ci biir néeg mu fees sa xol bu génnee ci mbedd mi mën naa toj xolu jàmbur kon xamal li nga war a nettali ci biir néeg bi ak li nga war a wax ci biir ëtt bi li nga war a wax ci pénc mi ak li nga war a wax abadan kon li ñuy wax mooy taax yu mel nii sunu maam yi bàyyi leen fi kees yi fi sunu maam bàyyi woon li ci suuf géej gi li ci suuf géej gi jànj bi nga ñëw fekk ko ci tool bi max yi di ci dund ndax yaa ko moom wala ndax sa ndono la ak ndonol max yi laaj bu sew la ndax ñoom it seen maam fa la dëkkoon te bu max yi jeexee xëy na mu am lu jeex ci sa dund ndax bu yemb jeexee lem jeex waaye du lem rek ay jeex xob yi du dund ak dundaat bu yemb jeexee xob yu ci bëri dootuñu amati ndax yemb mooy jëlee fii joxe fii ndax xob yi dañuy sëyante ci seen biir waaye mënuñoo jóg ci garab yi nu nekk yembay jëlee fii teg fii picc jëlee fii teg fii lañuy ñuy jël du ndoxum kese mën na yu la ñuy jëlee fii di ko teg fii léegi picc moomu boo fexee ba mu jeex moom ndax garab googa du jeex bu garab googa jeexee ndax boo woppee di nga am doom boo fajoo boo amul doom boo fajoo boo dee ku kon sàmm picc moomu ak tàggam ak garab ga nga xam ne ca garab googa domm la mën a tàgg ndax picc du tàgg ci garab gu ne ndaa tàkkaar yéen ñépp xam ngeen ne ci séng lay tàgg baa mu tàgg ci garabu niim bariwut looy dem ci yenn garab yi fekk leen fi loola ndax ci sa ndono la bokk waaw kay ci sa ndono la bokk loola 1972 la kuréelu àdduna yépp daje ne nan lañuy sàmmee ndono li nga xam ne ndono la luy jógee ci li nu tabax ak li nu yàlla tabaxal waaye nag ndono xam bi nu xam alam mi ak àll bi muy la convention de 1972 convention boobu UNESCO dañoo daje. di waxtaan di waxtaan ñu gis ne déqale gii boo fa demee la ngay njëkk li njëkk a ñëw ci seel waaye mooy xeex bi fan la amee woon yow xeex bu xëy na musulaa ñor waaye ñëw nga déqale rek danga naan xeex ba fan la waroon a amee léegi ñu ne la xeex bi fii la amee nga ne daara ji fi ne lu ko fi def daara ji li ko fi def ki ko fi def ki ko fi def ku ko jur kooko ku ko jàngal kooku fu mu ko jële kooko nu mu meloon laaj yooyu nit bu tàggoo di ko laaj boppam moom ak niteem la war a càmbar ndax nit yàllaa ko bindee lu mu xam lu ne bëgg xam la ca gannaaw loolu yàllaa ko def ci nit léegi nag su fekkee barab yooyu barab yooyu am na ci yoo xam ne bu demee musiba am waa léegi bu ñu xëyoon ñun ñépp ne dañuy màggale Tuubaa ñu àgg fekkuñu fa jumaa ja nu ni def mooy kenn musta damay màggali jumaa ja de dañ ne maa ngi màggali Touba fekk nga fa Touba waaye fekkoo fa jumaa ja nooy def nga teen gisoo làmp Fall kon am na taax yoo xam ne kenn du leen laal te dinañ ci ñëwaat léegi ndax lañuy màndargaal ku aji màkka fekkoo fa kaaba ga dana kon kaaba ndax barabu diine rek la wala ndax dafa nekk luy jëmmal taarixu àdduna ba àdduna bépp war a ànd peg ko yooyu nag lañuy bind UNESCO ne lii ñii ñoo ko moom waaye ñoom dong ñoratu leen bu ngeen déggee inscription ci patrimoine mondial loolu lay tekki beneen bi ci topp wax naa leen ko dafa am rabu àll yoo xam ne dañ leen a rëbb ba ñuy waaj a jeex bëri na ci ñun ñoo xam ne mën nañoo toog léegi ñetti at ñeenti at duñ gis si ndax buy dox te si ndax yi amoon nañ fii bi ñuy tabax suñ kër yi ndax danoo sàmm suñuy kër rek ñun bàyyi ñoom seeni kër bu nu demee ban jeexital lay am ñooña dañ leen a gaaral ay barab yoo xam ne barab yooyu nit du fa tabax nit du ko laal ndax bu demee la muy yóbbu ci dundinu nit dafay ëpp solo li nit di am ci bu fa tabaxee kër xaw ma dégg ngeen fi may waxee wala déggu leen ko loolu moo tax 1972 ñu def convention UNESCO ne dañuy dañuy aar lépp loo xam ne ndono la lu jëm ci mbatit mbatit mooy culture waaye dañuy aar lépp loo xam ne dafa nekk càkkutéef goo xam ne yàllaa ko sàkk te nit ki waru ko fay jëlee ndax bu ko fi jëlee dañu fi jëlee ay rabu àll yoo xam ne bu nu demee dunduk nit dana am jafe-jafe ñun ñëpp gis nañ ko ñu ngi ci weeru mars gis nañ ne daaru musti fi mu nekk nii daaru musti gii ba kokki tàngoor wi mu tàng diggante onze heures ak cinq kër jéggi na dayoo waaye tàngoor woowu sedd bi koy wecc guddi diggante deux heures du matin ba six heures du matin sedd boobu jéggi na dayoo te loolu fukki at yi ak fukki at ak genn wàll ak ñeent fukki at yi ci ginnaaw amul woon loola lan moo ko indi mooy barab yi ñu waroon a aar te aaruñu leen loolu moo tax 1972 ñu def convention boobu mais bi ñu demee ba ci kanam ñu ne doyut ndax nit ku ko bàyyi ak ni mu bëggee bànneex ak ni mu bëggee dund tey maanaam li wolof yi tuddee njariñ loo fekke du sóoraale mukk ëllëg te gis nañ ne guerre yi fi am ci diggante nit ñi kenn ku ne yaa ngi fexe ba sa moroom raaf te xam nga nit bu aadaam jeexee cosaanam jeex day raaf danaa ñëwaat ci aada ak cosaan jooju ñu ne kon ni murit bi amee sañ-sañu sol baay laatam toog def kuréelam def kafe Touba def berndem keneen ku ko séen ku ne ne ma nga wala sa xel dem ci ne kii mooy kii ndax moom murit boobu am na sañ-sañu ne njaago bee bu amee dëj néewam bii du ko suulee nii ñu ne kon nan doxal maandu ci suñ diggante ci mbatit mu dul sa mbatit ndono lu dul sa sa ndono nga maandu ca te bakkoog borom fii ak yàqalu la dara yow kon ñu protéger 2005 ñu def beneen convention ne expression culturelle yi maanaam ni nit ñi di wane seen aada ni ñuy wanee seen cosaan loola nanu fexe ba ñu bañ ko méngale ba mu doon benn ku ne ñu bàyyi la nga moom sa fi bopp ndax ku tukki gis leneen waaye laataa loolu 2003 dañoo toog ba ci àgg ñu ne kon coow am na ñu ne lu tax. ñu ne dafa am loo xam ne dañoo jàppoon ne amut solo ci nit maanaam lees munta teg bët lees munta teg bët ba ñuy def 72 dañ ne woon taax yi ak lin jëmmal loolu mooy ndono li waaye nit ki ni muy xamee boppam tagg win koy tagg làkk wi muy làkk làmmiñ wi muy wax buy ngénte ni muy ni muy tuddee doomam buy def ceet ni muy séetalee waaw wax jan cay wax kii nga xam ne dafay dafay dafay dafay dafay def taarix kii nga xam ne dafay def diiwaan ni ñuy ràbbee mbubb mi loola moom nit du ko gis léegi nu nuy def ñu ne loola kon nan ci waxtaan ba juboo ci loola mooy lan ñu ne lan mooy patrimoine culturel immatériel maanaam turaas bi nga xam ne yow munoo cee teg sa bët maanaam sànq ba léegi maa ngi wax yéen a ngi may dégg waaye waat yi génn ci sama gémmiñ gi amu ci wenn wu ngeen mën a teg bët du ngeen ko gis yéen a ngi koy dégg te wu ma ci wax wu ne bu daanoo moom ñàkk naa ko buñ ko dencut fenn léegi may làkk wolof ngay làkk joolaa ndax wolof rek ngay làkk wala da ngay yóbbaale xam-xam ci biir làkk bi ngay làkk ñu ne xam-xam boobu nu ñuy def ba nit ki xam ne moo ko moom waaye da koo jëlee ci maamam jëlee ko ci baayam ma jox leen lu gën a gàtt sëñ naa Diop léegi bu ne woon nanu ndogu li muy njëkk a wax mooy njaayeen ni def leen dànk bu fi ab séeréer nekkee li muy njëkk a def léegi mooy pël yi def leen dànk bu fi ab mbàkke mbàkke nekkee li muy njëkk a xool léegi mooy ñaata ndaw ku ndaa fi ne loola kan lañ ko mas a sax kan lañ mas a teg ci kër jox la alluwa sala ko ne nii lañuy defee doomu bàjjan ak doomu nijaay nii lañuy defee kal nii lañuy defee gàmmoo kenn mësu koo sa kenn te ñépp ko mokkal te sa nañ ñu ba tàyyi lu mokkalu sa nañ ñu ba tàyyi lu mokkalu jaar ci daara xam nga ko boo ko weddee seetul te laaj sa ndigg sa digg gannaaw moom xam na ne sanañ la ba tàyyi sable xam na ne sanañ la ba tàyyi loo mokkul donge daara yi ca gannaaw xam nañ li ma wax waaye lin la sawut nga mokkal ko loola moom lan la ci yow te doo ko gis maanaam doomu bàjjan doomu nijaay kenn bindu ko fenn kal gàmmu kenn bindu ko fenn mag moom ci yoonu murit kenn bindu ko fenn kenn du ma indil benn téere buñ bind ne dañ koo bind murit yee daje keroog réunion bind lu weesu keroog borom daaru toog na Cheikh Moustapha toog ñu ba noppi ne ko ñooy sa baay waaye doy nga ñu jiiteel yoon wi wax dong la woon waaye wax jooja dafa am doole ndax ca kam jóge ak ca kam jëm ak ca jataay ba ban ko waxee léegi ndono loolu ñu ngi ko téye ñun ci yoonu murit ñu ngi ko téye ci yoonu tijaan ñu ko téye ci yoonu xaadir ku sa baay noppalu nga wuutu ko ndono loola am na ñu bëgg mu jóg fi waaye sëñ Moustapha Sall noo tontoon na leen bu yàgg moom waaw tontoon na bu yàgg ban ne ko amu leen démocratie yéen murit yi amu leen démocratie moom def na danoo am lu ngeen amut ndax démocratie mooy ñëpp a yëkkati seen loxo ne danoo bëgg ñi ci des tànn kin bëgg. ñun nag danoo am loo xam ne ñëppay ànd ne diw mii lañ bëgg te bu dul moom bëgguñu keneen ñi bëgg a nekk xalif général fii mu nekk nii jël place sëñ Muntaxa yëkkati leen sa loxo kenn du yëkkati kafe tuubaa gii Touba daa am ay ma ay toolu kafe Touba am na toolu kafe ay yéen mosu leen laaj seen bopp lu tax kafe gi sant Touba. te Touba amut café te duñ bay café turaas aada ak ndono defin wi la am moo amut fenn mag ñi fi ne xam nañ ne 1974 ba métti ba métti ba métti ba nga xam ne dara meññut sëñ Abdoulaye def na woon nañ jël dugub dugub bu suuna ñu xalaat ko xalaat ko ba ci kanam 80 yi ñu jël dugub bu suuna di ko def café Touba. dugub bi suuna jii lañ daan jël teg ko ci saafu yi booba maa ngi caameen ca sama mbaari baay sama mbaari baay di tëgg saafu ku am sa dugub bi suuna ñu saaf ko def ko kafe di ko segg ñi nga xam ne dañoo amoon sax turaasu di war ay fas yu fecc waa peex da wutaloon nañ ko way waaye dañoo nekk ci jumaa bu doon conférence bi ci penc ma la dinaa leen jox way wi xam bu noppee mu bind ko yónneel incha allah loola lan lan lay tekki mi ngi tekki ne li nga munta teg sa bët ci sa aada ak sa ndono moo ëpp doole téeméeri junni yoon li ngay teg sa bët parce que li ngay teg sa bët da koy gis te li lay def yow mënoo koo wax maanaam nit la yàlla sàkkee buy noy du ne maa ngi waaj dugal ngelaw maa ngi waaj génne ngelaw te bu noyyiwut de waaye buy lekk danaan maa ngi raxasu bu dee ab sekkeen danaan maa ngi xool li gën a neex ci bool bi maa ngi dank maa ngi sàqami maa ngi wanaasu maa ngi warax bu fotee day taxaw waaye yi kenn du ci fot te kenn du ko xalaat kon nit ki li ëpp solo ci moom li koy def daanaka bu koy def du ko yëg loolu moo tax boo mokkalee alxuraan di wàccee daanaka doo xool doo xool doo xool da ngay dem rek waaye lu jeex nga xam ne jeex na te fun la fa génne la fu ne nga xam ko ndax dafay dem ba day nekk ci yow nit ñi dañ maa wax ne ma patrimoine boobu amul njariñ ndax patrimoine bu kenn dul gis la patrimoine bu kenn dul laal la malaaj laaj leen neleen lan moo tax jullit bi buy julli du ubbi kaamil téye ko buy julli day wax tur wi nga am ñu tuddee la sëñ naa Jóob nit a toog rek wax ko ne diw mii tuddee nañ ko sëñ naa Jóob kon làmmiñ woowu wax wax boobu ndax am na doole ci nit ndax amul doole ci nit li gën a doy waar mooy sëy quatre quarante cinq sa loxo day araam tegu ci pooju ki ngay bëgg a takk ñu julli ba noppi cinq heures une minute imam bi ne may naa diw diw mu dagan la te doon ko wax dong loolu moo tax ñu ne làmmiñ wi nit ki di waxee li gën a foor ci ay ndonoom làmmiñ woowu da cee bokk te dañ ko war a sàmm ndax làkk bu demee rek làmmiñ bu demee rek am na askan wu seey bis bu ñu demee ba kenn waxatul wolof ci àdduna mooy wolof yëpp dee nañ bu ñu demee ba waxatuñu pël pël yëpp dee nañ bu ñu demee ba waxatuñu bëdik wala manjak waaye du du loolu rek moo dem maanaam bu làkk wolof demoon tey làkk séeréer dem làkk pël dem lii dem du làkk wi ñuy wax rek du jaay ma maa ngi jënd waaye ñett ngi nii yuy dem ñett bu njëkk bi mooy tur yëpp ay raaf tur yëpp ay raaf ndax nit mënoo koo tudd ci aw tur te jaaroo ci làkk wi te làkk wu ne ak na muy waxee damay laaj ba tàyyi ne baatu jomb man am naa doctorat ci tubaab waaye diw diw gor day jomba def lii ku ko xam ci tubaab nga wax ma ko baat bi maa ngi koy laaj nag ñaar fukki at ci tele bi kenn waxaguma ko ndax jomb jëfin la dëkkin la dundiin la gisinu àdduna la loola ñun ni ñuy gisee àdduna ci diggante nit ak boppam moo tax baat bi juddu ki nga xam ne moom du gisee noonu àdduna baat boobu du ko am moo tax lii ñuy tuddee patrimoine immatériel làkk wi ngay làkk làmmiñ wi ngay làkk da ceeb bokk ak la muy la muy jàllale ci xam-xam beneen bi mooy li ñuy wax li ñuy wax toftaleeg jëf ci lu jëm ci diine toftaleeg jëf xam nu ngeen koy waxee ci arab mooy rituel tartib waaw nee nañ ma ci araab mooy tartib maanaam booy julli mënoo sëlmal ba pare soog a kàbbar loolu de xanaa mënta ne kon toftale gi loo ci dindi ñu am jafe-jafe ci julli gi ba da nga koy mujj am noo koy lijjante njàpp mi toftale gi léegi nag ñu ne nit ki ay mbiri àddunaam ni mu koy toftalee toftale googa ndonoom la te ndono loola dañ ko war a dañ ko war a sàmm xam nga ñetti ñam a ngi nii ñetti ñam a ngi nii yoo xam ne bu ci ne bu ma soppee waxtu wa ma koy joxe tur wi soppi ko te ñetti ñam yi benn ñam la bu ma jëlee boolub cere xëy suba ndékkee goo ma jox ngay suba euh, liggéeye goo ma jox la ko ndékki la tudd boolub cere boobu ma denc ko ba deux heures ma jox la ko ab añ lay tudd ma denc ko ba jant sa ma jox la ko mu tudd reer te boolu cere bi kon ndax moom aw turam moo ko yor wala joxin wi ci jamono bi moo koy joxu turam léegi bu làkk wolof dee loola day dee ki mën a mocc ki mën a jàngale ci wolof bu demee ba déggatul wolof loo ko jàngalee lu ne du mokk moo tax li ñu war a njëkk aar mooy ci réew mu mel ne Sénégal mooy fexe ba kenn ku ne saw làkk bi nga xam ne moom la sa ndey nàmpal nga mokkal ko bala ngay songu làkk weneen ndax ku mokkal sa làkku ndey mokkal weneen làkk xam ngeen lu tax li yàlla sàkk ci àdduna xam naa ne sax seetlu ngeen ko lenn dong nga ciy fer di naan meew mooy nit li nàmp lépp nit dong nga ciy fer jóg wuti meew kenn su fee gis xar mu fer am at di wuti meew bun paree ci nàmp pare nañ ci nàmp ñun moom ñoo dul doyal ci nàmp ñun dañuy fer wuti meew tey jii bu ñu dog fi mu ñépp wut nañ meewu pëndax te ween woowu moom lañuy wax ne moo la jox li ngay wax kon làkk woowu bu fekkente ne yow da ngay namm loola ba di ko wut sa giirub dund kon làkk wa nga njëkk a taqamti koo xam-xam boo ko xamut lan ngay xam ci àdduna bi moo tax ci biir loolu dañoo am ndono loo xam ne ñu ngi koy sànq te ndono loolu yéen moom waay daara yi ak sëriñ daara yi ma fi gis ndax gis naa fi sëriñ daara yu bari am ngeen liggéey bu mag a mag a mag a mag ci mag ñi nan njëkkoo na di jàngale alxuraan maas yi dëppale ko ak ñoom seen jamono nu mu toll masque gi nuroog pujub néeg ñu tudd ko masque ak néeg gi turoog gi nuroog lonk gi ñuy lonkee lonkee euh, kàdd wala séng ñu tuddee ko masque ak lonk maanaam dañoo jëloon ñoom seen aada ak seen cosaanu mbay dooni baykat fexe ba ci biir njàngale mi ñu dugal ko noo xam ne gone gi liñ koy jàngal du doon lu bees loola ndax dañ koo war ne dafa dépassé wu ndax léegi maîtriser nañ arab wala ndax dañ koo war a denc di ko gëstu ci pédagogie ngir xam naka la ñuy mën a méngalee tey gone yi jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo ordinateur bi ñuy jëfandikoo TikTok bi ñuy jëfandikoo leneen ba tënk leen ci li nu xam ñoom ngir seen mokkal gën a gaaw loolu moo tax ñu war a aar làkk yi waaye leneen lu am solo te ñu ngi ci jëm mooy ndax xam ngeen ne wenn askan bokkut ak sa moroom nooy toggee loola yomb na ndax askan wi dëkk ci fu am gàncax ak wi dëkk fi dul taw mënunoo bokk lu ñuy lekk léegi nag booy gëstu turaas dañ naan la kenn ci ñoom gën lewut moroomam la muy lekk naka la ngay téye loolu nag ba du la raw gone yi ci jataay bi ndax xam nañ lu wutale kal ak gàmmu ndax xam nañ ko lu wutale kal ak gàmmoo kal mooy diggante sant yi ak diggante doomu bàjjan ak doomu nijaay ak diggante maam ak sët loolu mooy kal gàmmoo mooy diggante waaso yi gàmmoo bokkut ak gàmmu gàmmoo walla lan moo tax ma indi ko mooy dama leen a bëgg a wax wan rek nga aar sa turaas nga téye ko nga aar sa sa ndono li nga dul gis nga téye ko ban njariñ la am tey jii xool leen sëy yi nim gaaw a tase xool leen ndey jëkkër yi nim juboo dikoo ak gone yi sëy si ci biir kër gi dafa am luñ dindi dan ñu ne boo sëy see neel sa jëkkër nijaay waaye dafa am lu ko jiitu woon treizième siècle treizième siècle fii ci ak dendu Afrique danoo xeex xeex boo xam ne daanaka ñëpp a raaf bi nu xeexee suñ jataa gañe dajale ñëpp kirina ne leen xeex nan ba noppi mun a waaw mun ne ci biir xeex bi man ki may xeexal su ma wur kampe doomam mi ngi ànd ak man di xeex di xeex baayam ndax bëgg jël ndoon ndax bëgg jël pouvoir ba waa léegi xeex nan ba noppi man naa gañe mu ne waaw mu ne léegi benn laaj laay laaj lu mu jotee ñun ñu doon xeex lu nu jotee kenn mënu cee wax ki nga doon xeexal lu mu la def noo man sama maam defoon na maamam baayam ak sama baay sunu bàjjan sunu dëkk ak seen dëkk waa daaroog waa ndindi waa ndindeeg waa ngaabu waa ngaabu ñun duñu fa jaar ñoom duñu xam nga paaka yi nii defar ñu neexunu ah maanaam xeexum ndono mooy li am Sénégal léegi ñëpp a mer te kenn xamut ko kenn xamut lu tax nga mer ñu ne mu ne leen kon lii fi mag ñi bàyyi woon nanu fexe ba bind ko waaye nun koy bindee dañ koy bind ci làmmiñu ñi gëstu histoire mu ne kon man sant naa Keita maanaam kii dox soxlay soxlay nit ñi léegi bala fase kese mii nga xam ne mooy géwél bi dama koy xale yi géwél bi daan ànd ak buur da daan magee buur ñaar fukki at nekk moroomu baayam bokk ak baayam néegu góor ñu jox ko ko ngir mu yar ko kooko du ragal buur ndona loolu dañ ko topp moo tax nii nu koy defee léegi baaxul léegi ca biir loola lan ne maam ak sët ay ay kàllañ lu leen neex nañ ko waxante moo tax seen maam yi góor yi naan leen sàcckatu jabar yi seen maam yi naan gone yu jigéen yi sama soxna loola foofa la jógee biñ koy def ñun treizième siècle di def charte boobu teg nañ ci juróom-ñaari xarnu daanaka France di soog a am révolution ñu teg ci beneen xarnu ñuy soog am déclaration universelle des droits de l'homme kon ñun bi ñuy def déclaration universelle des droits de l'homme 1236 booba adduna bi yeewoogut te fii la woon ci Afrique sowu jant boobu ponk rek laa ci jël ne maam ak sët ay kal lañ ma ñëwaat ci laaj bi ma dugaloon sànq bu fekkente ne man man sama yaay sama yaay ku ma jur ku ne ak jarbaat bu ma am bu ne sama yaay sa kal la sañ nga ko wax lu la neex sama jabar bu duggee ci kër gi ne ma nijaay sama yaay lanam la maamam comme maam ak sët duñ xuloo sama jabar lu ko neex na wax sama yaay ndax maamam la ndax nangu na maa jox cërub nijaay gis nga niñ ko dëppee léegi ñàkk xam suñu aada ne déedéet yéen a yem ci kër gi boo ko waxee nijaay day wane ne amoo ay droit déedéet danga naan ko nijaay koo jur mu doon sab sang ndax doomu nijaay mooy teral doomu bàjjan sa ndey da day da judd rek ñu ne la kii yow yaay ab sangam ndax sa baay nijaayam la maanaam sàmm gi ñuy wax ñu sàmm ko foofu la jëm sàmm googu dafay régler biir kër yi léegi ñu ne ci biir aado jooju ñu ne la boo amee ab aawo nga jëlub ñaareel xam naa ne sax bu bëriwul ñu am ñaari jabar xam naa ah dañoo jëm timis kër te wolof nee na dof rekk ay xuloog jabaram timis nga am ñaari jabar ñu ne la aawo bi aawo bi mooy wàcce ñaareel bi boo amee taaw bu jigéen tuddee ko ko waaye dafa am lu luñ ci laxasoon dañ ne la buñ la tuddee sa doomi wujj yéen ñaar bu ngeen xuloo day gàtt fan bu ngeen xuloo bu bu gàttee fan bu dee yéen ko rey te xam nañ ne bakkan yàllaa ko yor waaye am na luñ leen doon dugal ci kal googu maanaam yamul rekk ci sekkeen bi dafa romb foofu boo ko gëstoo dafa àgg ba ci tëgg bi nga xam ne moom mooy defar jumtuwaay yiy dagge ak pël bi nga xam ne mooy sàmm di yor jaas yi ñu xam ne fan koy defarloo ak fan koy fayante mën naa am indi histoire ñu ne leen ay gàmmu ngeen pël beeg tëgg bi amu leen droit xeex yow yaay defar ngànnaay yi kii moo koy jëriñoo xaw ma dégg ngeen wax ji xaw ma waa axlu Mbàkke dem Touba dem dem Saalum toog fa Saalum ndaw kundaa yi di fa bëllëb ñu xam ne ñu xam ne kii soog a ñëw doomu jiit du doom loolu la ko ci bar moo xoon daf ne doomu jiit du doom waxut doom ji sa jabar indi de daf ne ki fi dëkkut te nga njëkk ko fi te mu ñëw xamal ne boo ko dalalee bis mën naa ñëw mu jël nguur gi ci yow li ñu ko wax loolu lépp waxu ci dara mu ne doomu jiit du doom léegi ngeen dem fekk leen diggante ba walla Kajoor xool la maam doon rafetal te lislaam dindiwu ko ngeen fexe ba ndaw ak axlu yu nekk ay doomu bàjjan ak doomu nijaay di kalante ka ne woon buur gis sëriñ bi tey ami nit te moom mii buur amatul nit xolam mën naa wañax ci nit ña wër buur loo taxoon ñu doon boole sëñ Tuubaa ak bi njëkk boobu da doon gaawal yoon wi rek kon kal boobu ak gàmm Afrique de l'Ouest gépp a ko bokk mandé gépp su ngeen déggee ma ne mandé mooy dëkk yi nga xam ne yépp boo fa demee di nga fa fekk loolu tudd kooraa ñi tukkikat yi dem ba Burkina dañ ko fay gis léegi nag ñu ne la réew mi am loolu réew yi am loolu nan ko bokk maanaam ban bu ma demee Burkina di liggéey bu ma gisee ay pël rek damay am sañ-sañu dal ci seen ko ñoom dañuy am sañ-sañu tooñ ma kon loolu nga mënta gis ak tabax bi nga xam ne mën nga koo toj tabaxaat ko lu ci doole jumaa ji nii la meloon bi may dugg léegi maa ngi yéemu naan jumaa ji moom dañ koy yokk ni ndax xaw naa fee géej tuuti ngeen baal ma xaw naa fee géej sëñ bi ndax boo jógee màggal day xat xam ne bu njëkk ba dañ daan ñëw yendu daaru musti daaru musti léegi dégg naa sax président def na ak conseil des ministres ne bu kenn waxati daaru musti léegi dañ wax daaru muxti gis naa conseil des ministres ñett te gannaaw bu nu ko defee léegi xat boobu mu xat jumaa ji ñu koy yokk ndax yàq na jëmmi jumaa ji waaye yéen ñëpp ku fi toog dégg journaliste mu naan meex jaay ma juróom dërëm cexe mooy suñ tubaab yooyu sa xol bi fi mu nekk sa biir kër gi boo mënoon a génn fekk ko ci télé bi génne ko cere ba nga koy génne ndax xeeb xeebu ko xam ne kii xeeb na ko boppam waaw léegi làkk woowu ndax war naa réer làkk bu réeree taggaate réer te xam ngeen lu tax taggaate ñu war ko téye xam ngeen doo ñu war ko téye tey bëri na ci ñun ñoo xam ne am nga koo bokkal baay mbaa koo bokkal ndey ak baay ngeen nekk Dakar mbaa mu tukki mbaa mu tukki say doom xamuñu doomam te gone yaa ngi daje ci TikTok ñi ngi kenn mënatul wax ne samay doom génnuñu say doom ci biir kër gi la ñuy toog wëri àdduna diggante wi ak deux heures du matin wax ak Chine wax ak Allemagne ñëw toog ci biir kër gi nga ne la bàyyi tey di génn ma ñoo génn léegi gone yi war a tase ci pénc bëgg a xeex ki leen xam jóg ne leen si tax mbaba jànq maar mbaba jànq góor a kàng këng fara yëkku maamu géy kenn ku ne taxaw defe ne boppam la ñu tàgg nga gind ko ne kon ay mbokk la loolu lañ daan jariñee tagge ngir nit ki xam ñi mu bokkal xam ni mu bokkee nit ñi ñu teg tekki nag bu nu ne diw ak diw dañuy war a sëy du ne sëy bi warta am dañ leen di tagg rek ñu xam ne ñi seen deret warta jaxasoo gone yi nag ñu ci bari ñu ngi sëy ak ñu nu xamut ndax dañ bu kenn taggati kenn alaaji sàmba jabari sàmb nag newoon ne wa géwél bi ak ku baax a bokk noonu ma ne ko kan mooy seen noonu mu ne ma ki baaxut te démb am baaxut kooku du bëgg géwél ndax géwél démb lay wax kon bu làkk wi demee loolu dem bu làkk wu demee léebu yi dem xam ngeen léebu mooy lan mooy proverbe nañ koy wax ci arab proverbe ah masal waaw xam nga tey wolof dalay fekk ngay xas nit du la tudd dalay romb rek na la wax ba yàq amut de wax ba yàqoo am na daan la wax ba yàq amut maanaam wax wër dëkk bépp naan sëñ Cheikhouna Mbacke mii mokkaluñ alxuraan dongom yi mokkaluñ alxuraan sëñ bi addiya ji muy jël teg ko fenn kër goo génn ñu ne kii bon ñu ne la wax ba yàq sëñ bi amut yow da ngay wax ba yàqu xoola wax jooju ni mu gàttee maanaam dissertation la wax ba yàq amut wax mën nañ cee def téeméeri junniy conférence kooru déwén ñu ne la yemal ci kudd ñu roof la ci gayet léebu boobu bu demee gayet amatut kuddu am na kon dootuñu mën a wax xale yi nan lañ daan ràbbee néegub xat ngay xool sa yaay di wax ak moom di xool xool magi dëkk bi di wax ak ñoom ñu ne la gone moytul ki maaseeg sa baay te fekkee sa ngone ndey ma déggu ma de ñu ne la moytul ki maaseeg sa baay te fekkee sa ngoneeg ndey te mooy koñ yi yéen a ngi joxoñ maire yi maire bi dafa soof maire bi dafa soof ñu ne la moytul ki maaseeg sa baay te fekkee sa ngoneeg ndey ndax noppam ak boroom waaw léegi ndax loolu dafa war a dañ ndax waxin woowu nga xam ne da koy wax nit ki rek mel da danga koo jam dara léebu yi bu dañee léeb yi dañ ci loolu nag laay taxaw léeb lan mooy léeb lépp mooy nettalib dañuy tënk jaar-jaari nit ci rabu àll ngir bañ koo ngir bañ koo rusloo ci kanamu mbooloo mi ñépp ay toog ndaw si jël doomi jaambur jun ko ba ci kër gi di ko sonal guddi toog rek ñu nettali ko kumba am ndey kumba amul ndey nettali ko ki ndeyam dee woon ñu koy sonal ci waañ wi di ko sonal di ko toggloo ba mu xëy suba rek ñu ne ko kudd bii nga raxas lekk kook bii nga raxas te setut demal déegu daayaan xam ngeen daayaan fu mu nekk aéroport jas ca gannaawam fa la déegu daayaan nekk dem naa fa ñun ñëpp dañoo defe ne woon amul ndaayaan dëkk la déggu leen ko yëpp ñu naan dañuy def pooru ndaayaan foofu mooy ndaayaan waaye sori gum sori woon saalum sori gum sori woon jàmbur moo tax ñu ne dafa sori xale bi waroon a jógee fi dox ba jas waaye déglu leen baax ngeen dégg bu baax li ma leen di wax xale bi lan la njëkk a taseel ñetti pànket yu togg seen bopp lan la taseel déem guy bàcc boppam lan la ci teg cin luy togg boppam lan la ci teg màggat moo xam ne genn wàll gi nit la genn wàll gi rabu àll képp ku miin waaj xam nga ne diggante rosi ak baaral da nga ko ci cin li muy togg boppam waaye ku mës dugg ci waañ du xam loolu képp ku mas fekk fu ñu toggee beñe wala panket xam nga ne boo jëlee fëriñ bi teg ko ci dañuy dàqante ci biir diwlin gi képp ku yàgg a dem taxani mbaa nga yàgg a bay xam nga ne déem bu doom yi ñoree ñooy bàcc seen bopp kon lan lañuy jàngal waajur yi fexeel ba sa doom xam àll bi ba àdduna du ko teel a du ko teel a këf keneen ki nga xam ne ndey mosu ko dugal ci waañ wi bi mu gisee loolu moom dafa yéemu ni lii munta am tooñ leen waaye ñam tooña ko mag ñooñu ne ko fa nga foo jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm gone gi nga xam ne léebal nañ ko loolu mu gis ne gone gi respecté mag ñi ci yoon wépp dafa tekki waaye gone gi nga xam ne ñaar ñëpp kumba lañ tudd moom respecté wul mag ñi bi mu ñëwee bay wàññiku ci mag mi nga xam ne genn wàllam nit la genn wàllam rabu àll te xam ngeen ne yéen ñi jàng alxuraan xam ngeen ne nit ku ne am nga ci biir ci sa biir nite ak saytaane am na jamono ñoo xam ne da ngay jëf ba pare ne ndax nit laa woon bi may jëf lii kon ci màndarga ñu jox la ko ne la xamal ne koo gis am na mbaax ak mbon ci biiram léegi gone gi respecté loolu bi muy ñëw dafa indaale alal ndax ñetti nen lañ ko jox ne ko bii toj ko booy génn bii boo demee ba ci digg bi bii boo agsee nga toj ko ci gàttal xaju fi waaye geneen gone gi nga xam ne moom ndeyam yaru ko baayam yaru ko biñ ko joxee nat ñe moom damay demam moom dama koy tënk ndax kenn du ko nettali ci jumaa waaye dikkam ñett nen yi daf ne waaye mag mi kii mag mu màggat mi di ma wax ay nen lu ma koy def man maa ko gën a xam nen nen ba mu njëkk a toj rabu àll dañoo génn lekk ko mooy li leen dal tey maanaam lépp lu mag ñi wax nga ne paa yi dañoo dépassé waaye yow yéen a ngi fàttaliku ni lépp bi jeexee gone gi ndeyam boolub cere la teg di ko reer am picc ko tiim naan ko xale ba demoon déggu ndaayaan xol baa ngi nii te tana ko indi te tan médd lay lekk waaye tan miy lekk médd bu guddee lekk xolu gone googu kon gone googu xolam nu mel maanaam xolam médd ko gën lu tax xolam médd gën ko mooy dañ ko yarut gone gun yarut sa ay bon ba médd kay gën ba picc du ko lekk bukki du ko lekk léeb boobu gone gi daan nañ ko ko léebal te amul juróom-ñaari at gone googu bala muy am fukki at ak ñeent lépp luy njanaaw lépp luy garab yéen xam ngeen ko xamu ngeen turu picc yépp turu rabu àll yépp ci léeb yi ngeen ko xamee woon nañu bukki segg mbëfër kenn ku ne ñu jox la turam doo xam sax lan la waaye da jekk ba càgg rek nga dem ci àll bi rek seen dara ne lii mooy lii léegi loolu bu jeexee ñun amatuñu ko fi mu nekk nii buñ ko sàmmut fu jëm aha kay xam naa fi jëm bu ñu xëyee dañu taaj suñ gone youtube ñu ubbi télé yi keneen di leen léebal la mu bëgg maanaam dangay ngay yendoon naan sa doom gone day weg mag ñu jox ko léebu tom ejéeri mu koy seetaan ci télé bi tom mu mag mi jéeri mu ndaw mi di ko toroxal rek ñu jàngal ko ne ko mag du wax dëgg mag du wax dëgg foo ko mënee toroxal toroxal ko gone yi saaga mag ñépp ci tiktok tom et jéeri lañ seetaan bàyyi leen xel ci tom et jéeri waxuma couleur góor jigéen yi yooyu moom waxuma fi mu ne xam ngeen ne youtube gis ngeen couleur yi ci ne man sonn ma ci damay jël couleur bi gis drapeau góor jigéen tegal sama waa kër ne gis ngeen li ngeen di seetaan ñu naan man leen lii mooy couleur góor jigéen ñu ne ma papa léegi nag man leen léegi nag naga nga ca gétt ga man kay nit ñi lay waxal léegi yéen lu ngeen ci li ngeen ci tënk ñu ne ma ah xamuñu man leen fexe leen ba xam booy wañ ñu fekk leen ñu koy changé sëñ Babacar mii day ñëw sama kër moom moo yor sama centre bi waaye léegi fexe na bu gone yi bu ñëwee saari alxuraan la ñuy toog di ko njëkkante ak di ko jéem a njëkk gën a mën a teel tari bi télé bi léegi nag léeb yooyu ñun dañ ko bëgg gëstu mag ñi yor ko ñu fexe ba li ci am njariñ ci defar gone yi bala ñuy am fukki at ak juróom ñu jox leen ko ci ay jikko bala nga ne naam ne fa bala nga ne naam ne dangay lal sa ngor soog a wut alal bu alal jeexee ngor des lii la ma sëñ Matar Lo waxoon bi ñu ma nommé directeur général Sonalu ma dem seeti ko kokki na ko sëñ bi dama bëgg nga ñaanal ma mu ne ma tey de du la ñaanal yóbbu ma ci xabru sëñ Amadou Sakhir Lo bi. ñu taxaw ci buntu xabru bi mu téye sama loxo ñeme naa ci li may wax ndax xam naa ni dañ koy filmé te ñu ngi en direct te dana ko seetaan mu rëdd sama loxo bii ne ma sa der bii bu la ko deru kenn gënal sa liggéey bii bu la ko liggéeyu kenn gënal ñu xam sëñ Matar Lo te ne fi xam ne xam nañ ñi mi doxe jañax sama loxo bi ne ma demal regret dama tey loolooy sa ñaan keroog ba ma demee ba bëgg a bàyyi loolu laa xalaat ñaari baat yooyu ñëw sama biir bureau bi li nga bëgg a def ak li nga nar a def rek baat bi ñëw sa der bii bu la ko deru kenn gënal sa liggéey bii bu la ko liggéeyu kenn gënal ma ne banaa loolu diplôme du ko def ci nit njàng mu yàgg du ko def ci nit dëkk ak mag mu am cosaan aada dencoon ko di la ko jox la loolu moo tax léeb yi ak léeb yi waruñoo dem léegi nag ñun ñun ginnaaw xam nañu loolu ne war nañoo aar li ci biir ndox mi war nañoo aar gàncax gi tey kenn kenn sojotu fi wala nga xurfaan mën a dem ginnaaw daaru am rat indi ko kenn amatu ko kenn mënatu fee bëgg daakaande dem am werek léegi mm, sàggan googu ñu sàggan ba loolu dem mbaa duñ ko sàggan ba li fi bàyyi dem mbaa duñ ko sàggan ba li fi sëriñ Tuubaa bàyyi dem mbaa duñ ko sàggan ba li fi maam alaaji Malik bàyyi dem mbaa duñ ko sàggan mbaa duñ ko sàggan mbaa duñ ko sàggan saa yu ma gisee soxna Fat Ñang ak soxna Baali Ñang ñu ñëw kokki di ma gàmmul ak samay mbokk dama naan wolof de lii la waxoon ne ku iñaane sa ndono sa deeyin ñaaw ku iñaane sa ndono sa deeyin ñaaw léegi ñun ñun li ñu war a njëkk a leeral rek mooy lii ndono li ñun ñëpp bokkuñu ko fii ci biir daanu am na ndono loo xam ne ñun ñëpp a ko bokk muy suuf si waaye kenn ku ne sa suufus kër baay loola seen ndono la maanaam ñi fi ne te nga xam ne tëgg weñ moom lañ jëlee ci seen maam jox ko seeni doom loola ñoom li muy nekk nekk ndono nit ku ñuul ñoom ñoo ko moom ñoom xam nga dégg ngeen wax ji xaw ma maanaam boo jëlee tey kër yi tey ñu ne ndonal yoonu murit jumaa jaa ngi fi tuubaa nga fi xasida yaa ngi fi waxin waa ngi fi sunu ndono loolu waxin wi bernde ndax yaa ngi ci xidma murit boo waxee rek nga xam ne murit a wax ci vocabulaire bi loola bu ñu ko bàyyee mu dem lan lay yóbbaale léegi ci biir ndono loolu kër gu ne am nga sa ndonal bopp loola yaa ko moom ndax convention 2003 pour le patrimoine daf ne amul kenn ku sañ ku sañ dem ci ndonal jàmbur di ko laal te boroom àndu caag yow maanaam murid yi bu ñu toogoon ba càgg te duñ ko yëga ah, toog ba càgg rek ñu ne njàngum xasida léegi neneen lañ koy defee kenn amul sañ-sañu ñëw na leen du ngeen ko defee nii ndax na ko maam ñoom doon defee du nii ndax dañ lay wax ne la ci convention bi ne la loola li tax muy dund mooy li muy màgg te askan wu ne bu ñëwee méngale ko ak jamono jamonoom turki njaareem yi tey ndax dañ koy ñëwee nañ ko daan ñëwee ak machine yu njëkk yi te tey ñu man koo na man koo defee neneen maanaam loola dañ ci bàyyi xel léegi ndax ñi ko fentoon ñoo ko moom wala ñun ñu koy sol ñoo moom ndonoli ndax loolu waxtaanoon nañ ci keroog ca ca ca ca ca musée ba ne tey boo duggee boo duggee kër maam Cheikh Ibra Fall mm, te loolu bi ñuy gëstu ndono yi eh, bi ñuy gëstu ndono yi 2019 lañ ko gis da ngay dugg ci li ñu ne la lii ndono waa waa waa cubbeen la nga dem ci biir cubbeen waxtaan ak ñoom ñu ne la non du ndonal cubbeen gépp ndonal néeg sàngam la nan la ñuy fex ba loola ñu peek li nu moom lépp te du tas dara xaw ma nan laa ko mën a expliquer maanaam tey bu ñu jëloon lu mel ne Touba ñu ne Touba dëkk bi dañ ko yóbbu pour ñu protéger ko def ko ni ñu def yeneen dëkku diine yi ci àdduna bi xam nga lan mooy risque bi mooy dëkk bi bu ñu ko xasee ba protéger UNESCO dëkk bi bis bañ koy protéger photo ban joxee UNESCO photo boobu dootu bouger. maanaam dëkk buy dund ne Touba di dox di ko ndax protéger ko UNESCO am na njariñ te xam nga ne boo ko protéger doo jumaa ji tey bu ñu ko protéger woon ak état bii mu mel nii maanaam liggéey bi du ànd loolu moo tax ndar kenn mënu faa toj kër kenn mënu faa tabax kër moo tax gore kenn mënu faa toj kenn mënu faa tabax kër ndax lañuy ñuy màndargaal ci taarix boo ko tojee ba soppi ko ku ñëwati ëllëg du xam lii ni meloon moo tax protéger ville sainte bu mel ne Touba wala bu mel ne Daaru buy dox wóorut waaye nag def ko ci patrimoine national bi mën naa nekk te war naa nekk te ci loolu lañu war a jub xasida yi xasida yi li tax mu nekk mm, turaas mooy ba léegi nit ñi ñi ngi toog di ko di ko sotti bis buñ ko bàyyee sotti bàyyi ko jëfandikoo bàyyi ko jàng bokkatu ci ñun bokkatu suñ dono loolu substrat lay nekk maanaam lu nde ndee la kon liy dund rek lañ wax léegi ñun ci yoonu murit boo ko seetee am nañ ñeent maanaam dëkk yi mbindum sëñ bi mbindum sëñ bi ak mbindum mag ñi am ñi àndoon ak sëñ bi ndax lépp day dugg ci biir waaye am nañ am nañ dundiinu yoonu murit dundiin wi ñu am nag leneen lu gën a jafe denc lu gën a jafe denc mooy ndonole yi ndonole yi nan la ñuy nan la ñuy donnee ku dem bu njëkk bi wax naa leen ko yomb na yomb na maanaam lenn rek lañ xamagul mooy ñun euh, ci yoon wi defaguñ ko waa kër maam Alaaji Maalik defaguñ ko ñeneen ñi defaguñ ko maanaam jaar-jaar yi bis sàngam keroog bi Maam Mor Anta Sali dëddoo ba keroog cheikh bi biñ koy ñëw di ko làq si Touba étape par étape kenn ku ne ci ñun waroon na ko mën a tari na saaru alxuraan loolu buñ ko defee gone gi nuy jàngal ngir mu xam sëñ bi ñu koy tarbiya jóg ànd ak moom dox yoon woowa rek bis bu ne dëkk bu ne mën nañ ñëw def ci moom jikko ju taxoon sëñ bi sanc dëkk bi maanaam kon ndonol ci mu dëkku maam Cheikh Ibra Fall diir bi Serigne tubaa nekkee Gabon maam Cheikh Ibra suuf yi mu jënd yëpp lu tax mu jënd leen ci wetu raay bi yii mu jënd leen ci wetu géej gi fu ci ne ba mu koy samp mu samp fa daaral alxuraan def fa ab teen def fa ay tool lu tax wetu raay bi ak wetu géej gi ndono loolu ndax ñun jël nañ ko ba bu ñuy jënd kër ñun murid yi ñu xam ko xam nga lan la waxoon ne damaa xam saay-saayu ñu ko yóbbu ne xam naa buy wàcc mënut a wàcc lu dul ci ndox wala saxaaru géej saxaaru saxaaru jéeri damaa bëgg bu wàccee suuf sa bi njëkk a teg tànkam ñu bañ ne ko du fi ndax diwa ko moom gis-gis boobu ndax ñu ngi koy jàngale ñun léegi lu ñuy wut këru angle ngir lan def fa boutique ndax lu ñu wax ñun murid yi dañoo war a mën a wut xaalis loola it ci ndono yi la bokk ndono lu baax nangoo xidma te dugal ko ci yoon wi beneen bi wax nañ ko keroog li gën a jafe denc li gën a jafe denc mooy jikko yi tey jii ndax tëgg nañ ñun gëstu nañ te xam naa ne bu université bi ñëwee dina am département bu yëngatu ci loolu dina ko am gëstu nañ tey yan ñaar fukk wala fanweeri jikko mën nga koo sotti ci nit xam ne kii jullit la jullit la bu doon murit loola mi ngi fi waaye ba léegi jógaguñ ci gëstu ko beneen bi ci topp maxtuume yi ñuy takk lu ko yëkkati woon ndax tey mi ngi koy dox ba léegi bu ko doxul lan la war a dox tey kon mbubb yi ñuy sol li ñuy gàlloo kol yi lan moo tax yenn saa yi kol gi ne ci ndigg ba mujj mu dem ci baat ndono loola ndax geestu nan ko lan lañ ci mën a jàngale gone yi xaar ak muñ def naa ne loolu buñ ko xamee rek danañ xam ne taax yi ci la bokk kër yi ci la bokk jumtuwaay yi ci la bokk waaye li ëpp solo mooy ndonol xam-xam mooy ndonol jëf mooy ndonol dëkkiin mooy ndonol dëkkuwaay loolu nag moom mi ngi dem képp ku miinoon jurbel yoonu jurbel wii xamoon nga ne am na barab yoo xam ne boo fa tolloo la lay yéem mooy tàppaatu seng yi ak këru xat yi tey anañu lan moo leen wuutale yan xam-xam lañ ko daan liggéeyee xam-xam boobu anam loolu ñun ñoo ko moom te ñàkk nañ ko wala buñ ko ñàkku tamit gëstooguñ ko te dañ ko war a jëli sëñ bi ndax école d'architecture yi nga xam ne architecte yi war a génne fii ci université bi ndax kër yii cent cinquante mètres yi sëy yi tasee leen war a defal war a kër goo xam ne da nga fa mën a kuréel man faa ngénte man faa tudd te kër ga am suuf ndono yooyu laa bëgg ñu koy waxtaanee te ñu te ñu bàyyi ci xel sama yaay nag dana ma ki wax bu sonn tamit war a yërëm nopp yi koy déglu moo tax sëñ bi ma bëggoon laa delloo kàddu gi ñu ñu xool lu ñuy euh, joxe kàddu gi mbooloo mi ngir mën a wax ak ñoom insha allah allahuma salli ala muhammadin wa salim maa ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi lay sant tamit loo xam ne am na tàmbalikaay waaye amul yemukaay def naa képp ku déglu waxtaan te teewlu ko da nga yëg ne kii di wax de li muy wax lu muy dund la lu mu gëm la itam ndax dañu wax ne kiy yër di wax bokkut ak kiy yëg di wax waaye ku la gis xam ne da yëg di wax te loolu feeñ na bu baax baax di wàcc teewlu nañu waxtaan wi te jàngee ni ci lu bare bare bare xamal nga ñu nit nan lay mën a natte ba xam li nga bokk li bokk ci yow ak li bokkul ci yow ci tàmbali koy waxtaan bi lu bare bari ci waxtaan wi xam-xam feeñ na ci defe naa képp ku ko déglu te teewlu ko boo delloo danga nga defaraat sama toogin te it bari na yoo xam ne nit ñi dañ koy ñàkkal solo te muy lu ama am solo ci buñ la ko firilee ba xam la li taxoon ñu ko daan def ndax lii nga leeral ni fi ne lépp bu njëkk mag ñi dañ ko daan def ba reer ba noppi toog ci digg ëtt bi gone yi wër leen ñu leen léebal léeb yoo xam ne dañ leen ci jàngal àddina ba mën cee xam loo xam ne sax day raw seenu seenu juddu xam mën nañoo dund lu yàgg sax dem ba jamono firil leen loolee nga xam ne moom lañ mokkaloon te xamoon ko te dana ko dégg seen maam kon lu ama am solo ñëw na ci waxtaan wi ñu ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne mu asasul wafa bi xooqeel iman yaakaar ji mu amoon ba tax ba yëkkat tam bi teg ko sa gis nañ ci leen doon séentu ba gis ci sax loo xam ne foo xam ne suñ jot kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu defal la gudd fan defal la wér defal la barke ci lii nga yëngatu ba yéen ji nga am ci leeral ak yaatal ndonul réew mi ak der bu ñuul yàlla defal ak yëkkatiku ak ku kawe ak ndam amul benn yemukaay xam naa am na ay question yoo xam ne ay laaj yoo xam ne euh, dikk na ci biir jotaay bi mu jëm ci thème bi doon waxtaane dañuy xajal seen Ousmane Oustaz Mbow su ko defee mu dikk ci li nga xam ne xaj na fi fekk waxtu yi jeex ci ay question bu ko defee alaaji suñu mu sàmm ngay mën cee tontu insha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu professeur Serigne Massamba Gueye ñu ngi lay nuyu ci turu muassasatul wafaa bi xuquqil iman ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral sa yaram te bàyyi la ak sam xel jataay bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe ku ko déglu di nga xam ni nit fonk sa cosaan dafa am solo lool ndax dina tax nga xam sa bopp bu baax a baax a baax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi daf doon laaj ndax njiiti réew yi discours yi ñuy jëmale ci seenu askan def ko seenu làkk ndax bokk na ci liy sàmm ndono li wala déet. Euh, asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di ko gërëm laaj bi tontu bi gàtt na lool ndax ñi ngi ci jamonoy campagne électorale ndax jamono ji dégg ngeen benn candidat bu làkk tubaab candidat yépp wolof la ñuy wax ndax xam na ne ñu yor carte yi wolof lañ dégg. kon buñ bëggee nëbb la ñuy làkk làkk woo xam ne mbooloo mi xamu ko ngir doxal liñ bëgg a doxal kon lii gaawal koom-koomu réew lii gaawal nit ñi nite lii gaawal loi ñu mën koo respecté mooy ñu wax ko ci làkk wi nit ñi dégg waaye booba na fekk gone yi ku dugg ci daaray alxuraan ku dugg ci daaray tubaab bi jàng ñeenti at yi njëkk yi bala nga koy romb nga mën koo liir mën koo bind bu ko defee ñu bàyyi la nag làkk wu la neex nga jàng ko waaye tontu bi moom mooy fii ak ñi jiite réew yi ñu ngi làkk tubaab ci li am solo ci nit ñi nit ñi duñ ko dégg te duñ ko mën a duñ ko mën a jëfe moom gàllankoor bi moom mooy rek ñu jël làkk réew mi jiital leen làkk yeneen yi nag ñu roggantee ko ndax àdduna moo nekk foofu te dinañuy tukki. waaw colin ci ndono la bokk ndax askan wu ne colinam dañ koy xàmmee kon xeetu baylaat yi ak yii ñu tuddee sëñ son yi bu ak yii ñu tuddee turkib njaarim ak yii ñu tuddee sàmba sembe yooyu yépp ci ndono la bokk te danoo war a léegi yéen ñi gone yi gëstu da ngeen a war bu ngeen demee ci université yi bitim réew yi wala université yu mag yi seen gëstu ngeen dëppale ko ak suñu bëgg bëgguñu war ngeen a mën a gëstu ci loola fan la jógee lan moo tax turkib njaareem baati turki nekk ci ba pare ñu santale ko njaarim kon bàyyi laat yii day màndargam koo seen mu sol ko nga rafet njort ci ne ab jullit la ndax mënoo ne ko murit a ne ko jullit léegi nag rafet njort googu li sëñ Saali waxoon nee na seet nit muy dem rek nga rafet njort ne jullit la rawatina ab murit la yow ubbi nga sa bunti àjjana kon tont bi waaw la loola ci ndonalu la bokk ndonalu du rek li sa maam indi woon mooy yawit li nga gaaral yokk ko ci tawar war ko bàyyee saw askan loolu la loolu mooy ndonal yi jërëjëf li sàmm doon ah, kay moom mooy wax ji loolu mooy wax ji moo tax maa ngi gërëm gone yi nekk ci ci ci internet beeg fu ne euh, saa wolof yi di góorlu waaye nan ko dugal nan ko dugal am na gone yoo xam ne tey jàngal nañ leen ci làkk réew mi ba am nañ bag testé nañ ko wane nañ ne ñooñu ñoo gën a gaaw a mokkal ñooy ëpp ay résultat yi nga xam ne dañ ko jàngee ci yeneen làkk kon li am solo mooy boo euh, ñu ubbi daara yi te sëriñ daara yi ku ci mënta bind wolofal bu ci caractère euh, nu mu tuddati bu tubaab bi nga def ko wolofalu caractère caractère arab bi ndax ñëpp xam nañ ne Cheikh Moussa Ka yàlla na yàlla yokk yiwam ba muy njëkk a bind di di bind ci sëñ bi ci arab la ko doon bindee waaye sëñ bee na ko na ko def ci làkk wi muy yëg moom ndax li tax sëñ bi di bindee arab mooy da koy def ci làkk ci wi ku tedd ki di yëg. kon d'accord naa ak yow ne la tontu bi waaw rek la nañu jël làkk réew mi ñu teel ko jàngal gone yi ñu mokkal ko bala ñu am juróom-ñetti at li mm-hmm. te ko jàng ci wolof ah du benn xoola gone gi dañ koy jàngal wañ wàññi xool réew mi ñëpp a ngi jooy ne bëriwuñ ay mathématicien bëriwuñ ay scientifique bëriwuñ waaye yow gone gi day nekk ci daara ji nekk kër ga ñu koy jàngal benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar maanaam takkub lim juróom la day toftale rek benn ñaar ñett ñeent juróom juróom ak benn juróom ak ñaar bu dee pël goo di di tati nay joyi joyi et goo pël ngi nii jàkkaarloog man léegi bu demee di jàng njàngum tubaab ñu ne ko 1 2 3 4 5 6 maanaam takkub lim bi muy teg bala moo ñëw lim bi àgg 16 ca set lay déggaatee 10 kon gone googu ni nga xam ne moom la moom la daan wàññee noonu noonu la mooñee woon xelam ci njëy boo ko yóbboo ci weneen làkk rek day jàkk day jàng làkk wi ba pare jàngaat unité yi kon ñaari retard la gone gi am moo tax bu ko jàngee ci làkku ndeyam wi nga xam ne mën na cee wàññi bu demee rek du am problème moo tax bu njëkk ba daara yi bala ñoo dalal gone dañ koy wàññiloo ba fukk bu wàññee ba fukk ñu xam ne xel mu mën a jàkku jàpp fukk boo ko saayee dina ko jàpp loolu moom moom liñ perte sax kenn xamul nu tollu ci xale yi ñu jàng weneen làkk ndax lépp lañuy ñuy jàngat xale bi xam gerte xam buntu kër ci wolof xam gerte xam buntu kër ci wolof xam tàndarma xam baat yooyu bu ñëwee war koo jàng ci tubaab day jàng tubaab day jàng tubaab ba pare jàngaat baat yooyu ci tubaab te xamoon na ko ba noppi. jërëjëf professeur ñu ngi lay sant bu baax lii ngay wax nag macha allah lu yaatu la nag ku ñu wax Hafiz Ibrahima ci waykat arab yi la bokk way na lu mel noonu tudde ko allamatul arabiyya atawlah lahum lil mu'jizati tafannuna fa ya laytakum ta'tuna bil kalimati nee na gis na aw nit ba dañoo tedd mun ñoo tedd te te lu ciir laaj lañ tedd hmm. arab yi lay waxal leen occident yi liggéey nañ jumtukaay bi ne waaye jotaay rek ñu mën leen ko jox sax yéen waaw kon loolu daal nañu xaw na moo tax kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ñaan yàlla mu yàgg la ci wéral la bu subaa ci sa abdou commissaire Ibrahima Kanté dañuy dalal li fas yéene waxtaanal mooy ubbi bu bees di am ci jumtukaay xarala yu bees yi incha allah taala moom fas yéene waxtaanee commissaire Ibrahima Kanté moom la ñu dalal kon professeur ñu ngi lay sant di ñaan yàlla mu guddal sa fan te wéral cosaan yi doon xam bu baax ndax ku déglu tey di nga xam kal di xam doom yi bàjjen xam xam li tax man ñu indi nga xam ni kon man ñu amoon bi ñëpp dañuy lu coow li bari bari jàmm rek mooy suñu diggante mm-hmm. lu histoire rek doo dégg mukk ni pël loolu kal ak ni ko waxee ci biir kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàgg na loolu seen wéral mu ne kii waxtu yi mooy ginnaaw bi nga waxtaan dafay laaj yi ñuy woy di ko jàngale ndax dafa bokk ci luy sàmm ndono yi. yi ñuy. yi ñuy woy di ko jàngale. laaj bi leerul de. yi ñuy woy. taalif yi. waaw taalif yi day fay dafay dafay sàmm ndono li ndax euh, boo xoolee yo am nañ misaal bi misaal bi mooy Masaalikul Jinaan xam Masaalikul Jinaan li ci yéeme mooy sëriñ Touba dafa fekk téere yu ñu wesar mu jël leen taalif leen ngir ñu mën leen a gaaw a jàng maanaam taalif euh, di jàngale ci taalif dafay tax niñ koy bindee daane li nii gone gi man koo gën a teel a jàpp moo tax gone gi dina jàng leçon du ko mokkal waaye bu déggee way mokkal ko kon loolu méthodologie la boo xam ne man damay damay damay ñaax nit ñi ñu gën a li ñuy jàngal gone yi ñu gën ko bind mbindum way ngir gone yi gën koo gën ko mën a mën a jàng def naa ne ñi jàng ci ecole ci jamono yu njëkk yëpp tëbën na ma rëbal dëbb noonu lañ ko jàngee woon waaw yooyu yëpp noonu lañ ko jàngee woon donc taalif moom waaw li may dalalee xele mooy man laboratoire bi ma bokk laboratoire de recherche bi ma nekk université xam naa ne bu ñu doon wàññi thèse ya fa nekk am na ci lu mat ñaar fukk yoo xam ne yépp yépp ñi ngi ko gëstu ci mbindeenu taalif yii nga xam ne ci wolofalu ci yoonu murid la génnee thèse yi ña nga fa ñoom jaawo fay ñoom ñëpp seen thèse ci loolu ci loolu lañ ko def allahumma salli ala muhammadin wa sallim